asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di am mbégte saa sunuy jàkkaarloog yéen ci l'émission des émissions ñuy nuyu bokk yi nga xam ni ñu ngi ci biir réew mi waaye itam ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ni ñu ngi bitim réew ak fu waay mën a nekk ñi ngi am ci ñëpp mbégte ak kontaante di rafetlu saa su ngeen di ànd ak ñun ci solution info di teewlu émission bi nga xam ni moom la ñu tuddee émission des émissions ñuy ñëw di joxe sunu xalaat ak sunu gis-gis ci li nga xam ni mi ngi xew ci penc bi di gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ñuy bàyyi xel di rafetlu kàddu yi nga xam ni ñi ngi ko fi yëkkati ci penc mi waaye it di rafetlu ñeneen ñi nga xamante ni léeg-léeg ñu yokk sunuy gis-gis ci kaw bu ñu warooy gis-gis ngir ñu xam ni àdduna noonu lay doxe ku ci ne am na noo xamante ni bi noonu ngay gisee mbokk yi ak xarit yi tey dinañ waxtaanee li nga xam ni mooy li xew ci pénc bi dinañ waxtaane ki nga xamante ni moom lañuy wax Mame Mbaye ci li nga xamante ni bii kat tax na mu yóbbu Ousmane Sonko ci yoon waaye bu ñu jógee ci Mame Mbaye dinañ waxtaane démb li nga xam ni xew na ci réew mi muy ay manifestation yu am fépp ci réew mi daal di nekk loo xamante ni bi yëngal na senegaal gis-gis bi nga xamante ni bi moom la ci journaliste yi am loola it dinañ ci ñëw waxtaan ci waaye itam dinañ waxtaane ki nga xamante ni ki mooy Cheikh Yérim Seck ginnaaw bi mu yëkkatee ay gis gi sama ki xalaatam ci li nga xam ni xew na ci pénc mi am noo xam ni waxee na ci ñu nit ñu am sañ-sañu yëkkati ay kàddu ginnaaw bi mu yëkkatee ay kàddu ci pénc mi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 faalewut mu nekk ay IGF ak IGE maanaam mën na juum ci loolu waaye même bu indee rapportu FBI d'accord na parce que rapport amul mooy kàddu yi nga xam ni depuis quelque temps moom lañ gis Mame Mbaye Niang présenté ñu ko ci réew mi wane ni amul benn yoon fu rapport ame Mame Mbaye nag li tax mu jaaxal ma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 di bés boo xamante ni bi bés bu daw yaram la bés la boo xamante ni bés la ci bés yi parce que dafa am yu bari yoo xamante ni bii amoon na mu mel ni bu ma ko doon jàngat damay wax ni tegante dënn parce que dañu yàgg tegante dënn ñi nga xamante ni bi ñooy waa nguur gi ak ñi nga xamante ni bi ñooy opposition plus particulièrement ngir leeral waa PASTEF dañu jóge woon ci événement mars yi 2021 mu am lu xew ci pénc mi mu nekk loo xamante ni bi lu doy waar sénégalais yi musuñu gis lu ni ñu ci bari daal ne violence bi nga xam ni gis nañ ko ci pénc mi mus suñu yaakaar ni sénégalais mel na nii loolu nga xamante ni bi mooy lu ñu bari wax daldi ne mus suñu foog ni sénégalais mel na nii et pourtant ñu gis ni li daan xew ci yeneen réew yi lu ni mel xew na ci réew mi bi ñu paree nag président ne déglu naa leen dégg naa leen mu mel ni am na loo xam ne jube woon nañ ko ginnaaw bi Ousmane ko génnee daal di taxaw def discours bu responsable wax ni déedéet kenn du dem pale nañ encadrer le président de la république li ko dese bariwul mu yeggale mandaam ci jàmm bu ko defee nga xamante ni buñ ko deful arme mën na jël ëllëg nguur gi tabu boobaa mën na demee neneen xale yi déggal ko daal di taxaw politique yi après toog quelque temps nga gis ni génn nañ wane ni li nga xamante ni bi moo fi jaar du dara lu du tëj gu ñu tëjoon askan wi mbirum corona naqar googu mooy li nga xam ni moo sababoon yëf yi président taxaw daal wax ne li amoon dootut am parce que li amoon mënatula ne du moment que préparé wu na ba pare bañ yaakaar ni loolu du am kon dañu nekkoon ci benn moment boo xamante ni bi ñi ngi doon tegante dënn ku ci nekk di wane ni li amoon mën na am wala lu ko raw ñii ne noo li amoon mënatu la am démb li xew-xew bi ñu xëyee gis nañ ci presse yi am na ci ñoo xam ni bind nañ ni policiers yi gañe nañ loolu nag nekk loo xamante ni bi man damay wax ne journaux yu bind loolu du ñu ay journaux yu responsable parce que loolu indiwuñ leen pour ñuy wax naan ku gañee ku gañewul mais li xew man jàpp naa ni lañ war a wax leeral ne lii xewkat warta xew parce que lii ak lii ak lii buñ ko defoon lii warta xew daldi wane li nga xamante ni bi mooy li am muy lan dakaar dem dikk yi nga xam ne taal nañ ko Sonatel yi nga xam ni song nañ ko Auchan yi nga xamante ni bii song nañ ko particulier jàmbur yi nga xam ni yàq nañ ko magasin jàmbur yi nga xamante ni bii moom la ñu jaxase nan la mën a journaliste mën a taxawee dal di ne policiers yi gañe nañ loolu di wax joo xamante ni bii du waxu ku responsable parce waroon nañu mën a indi ubbiwaat yeneen bunt ginnaaw bi ñu waxee li xew ba noppi tey ñaawlu jëf ji ni nga xamante ni bii noonu la demee kan la koo xam ni dafa dem ngir wuyu ji procès boo xamante ni bii bu ko neexee toog këram sax bañ a avant que muy wuyu ji fa mu dëkk barricade nañ ko mënta génn mënta yóbbu doomam école ñu xëy bés bi nga xam ne moom la war a mu daal dee solo pour daal dee dem wuyu ji. ñu tànnal ko ne ko yoon wi ngay jaar et pourtant ci jamono jooju ka nga xam ni moom tamit moo nga war a wuyu ji moom tànnaluñ ko fu mu war a jaar kenn barricade këram muy dem nga ne ko fii ngay jaar far force lay xew-xew yooyu yëpp nga mën cee bind bindoo ci mais dem di bind naan policiers yi gañe nañ loolu pour man du ko responsable du def lu ni mel moo tax par exemple damay poser question ne sunu journaliste yi yan façon journaliste lañ parce que nag wax dëgg fa yàlla far d'accord mais par parloo baaxul am na loo xamante ni bii boo ko gisee muy dëgg waxal ni lii kat mooy dëgg loolu bokk na ci li nga xamante ni bi dina tax ki nga xam ne moo koy def delloo si waat xelam lu mel noonu mooy tax ñu bari di taxaw di wax ni Sidy Lamine manqué na fi parce que lu tax ñu wax manqué na fi parce que Sénégal dañu tàmm diw manqué na fi diw manqué na fi diw manqué na fi diw manqué na fi mais ñiy wax loolu ci jamono ji ñu nekk ñoom dañu war a taxaw taxawaayu diw moomu ba loolu du fi manqué parce que tey si Lamine dem nit ñi taxaw ne Sidi Lamine Niass manqué na fi loolu nit ñi dañoo war a jëfee jëf joo xamante bi dinañ yëg ni kat Sidi am na loo xamante ni bii bàyyi na ko fi. parce que ñoo xamante ni bi mel na ni moom ñu ngi taxaw taxawaayam ñu gis ni kat lu mel noonu am na fi waaye Sénégal moom day mel ni nu ñuy gën a demee rek valeurs yi ñu koy gën a perdre di gën a perdre lu baree bari ay taxawaay ak ay bëgg sa réew ak et cetera yu ci bari bari ñu koy gën a perdre te defe naa ni loolu nekkul loo xamante ni bi lu war la et pourtant lu mel noonu sax bari na lool léegi ci li nga xamante ni mooy ndaw ñeek seen taxawaay ak seen gis-gis ci li nga xam ne mooy réew mi parce que am na ñu bari ñoo xamante ni bi ak loo leen mën a jox jaralu leen mukk ñu jaay li nga xam ni mooy seeni ngëm-ngëm li am solo tey dëgg mooy doxalin wi nga xam ni gis nañ ko démb rafetul benn yoon ci darab Sénégal ci biti parce que journaliste àdduna ñoo fa nekkoon te Sénégal exemple la woon nekk dëkk boo xamante ni bii exemple la ci pays Afrique yi maanaam ñu mel ni ñoom nit ñi daan roy ci ñoom am na image yoo xamante ni bii buy commencé di génn ci réew mi loolu képp kuy sénégalais da nga war a taxaw wax ci bind ci ngir lu mel nii dootut amati ilaa yawmi diin mbokk yi ak xarit yi ñuy amaat encore une fois mbégte ak kontaante dañu bëgg waxtaan gis-gis bi nga xamante ni bii gis naa Cheikh Yérim Seck am kàddu yoo xamante ni bii moom Cheikh Yérim yëkkati na ko ginnaaw bi nga xamante ni bii manifestation yi am na dañuy ànd ak waa Rési teewlu kàddu yi nga xam ni mooy yi Cheikh Yérim Seck yëkkati je vous en bref dafa am lu ñu waroon a xaar am lu ñu mënu woon xaar le fait nit ñi de manifester. aw ma ci problème c'est normal fépp ñu ngi manifester tey boo ubbee télé bi Grèce ñu ngi manifester France ñu ngi manifester lu fait que ñuy manifester Sénégal sax c'est bien parce que am na réew Afrique yoo ba xam ne kenn mënu fa manifester Guinée manifester nañ fa mu am 150 morts xam nga euh, Iran manifester nañ fa mu am plus de 500 morts donc ñu ngi manifester depuis plusieurs jours Sénégal il y a zéro mort c'est bien mais par contre dafa am image yu ma ay nit ñu dem ci travaux BRT bi di yàq liñ fa def. loolu def ma choqué nit ñu dem jël kaar yi Dakar dem dikk. di ko lakk. nit ñi dem ñoo xam ne seen ñoo nekk ci ay privé la ñuy liggéey am seen magasin Auchan wala dara nga dem lakk ko donc dans ce pays là il faut aussi ñu am culture parce que damay dégg souvent. ñu naan waaw état bi dafay interdire par trouble à l'ordre public xam nga gis nga droit de lu doy waar la da nga war a chercher équilibre. jërëjëf ñu amaat mbégte ak kontante eh, ci ñi nga xamante ni bii ñoom lañu ñu àndal ci liggéey bi Cheikh Yérim Seck dafa yëkkati kàddu yi nga xam ni moom la yëkkati ñu déggandoo ko. mu wax ni manifester le fait que ñu di ko def sax lu baax la mu ne c'est bien mu wane ni Grèce ñi ngi manifeste France ñi ngi manifester kon Sénégal manifester sax lu baax la mu wane ni am na dëkk yoo xamante ni bi kenn mënu fa manifester mu ne parce que Iran manifester nañ fa. mu am 500 morts ci kàddu Cheikh Yérim gine manifesté nañ fa mu am 14 senegal ñu manifesté fi mu am zéro mort kenn deewu ci Cheikh Yérim li mu wax boo ko déggee euh, dafay mel ni dafay mel ni boo defu ndànk dangay jàpp ni li mu wax dëgg la Cheikh Yérim dafa fàtte ni bi muy wax Iran nañu jox année bi bi doon manifester ba mu amoon 500 morts nañu jox Guinée année bi doon manifester ba mu amoon 80 morts ban année la diggante boobu Sénégal def na fi ay manifestations yoo xam ni am na ay morts yoo xam ni seex Yérim peut-être considéré wut morts yooyu ne ay nit ñu dee lañ parce que ñi ngi koy rappeler yi nga xamante ni bii am na fi muy ay dese quatorze morts yi ñoo ci mujj te boobu fekkoon na mbirum gine bi mu jël exemple romb ba pare Sénégal ñi ngi manifester mais ay moor ñi ngi am nit ñaa ngi faatu mais Cheikh Yérim li ma gën a naqari ci wax ji mooy moor yooyu peut-être moom naqariwu ko mais li ko metti mooy osan yi ñu dajji magasin yi yooyu lu mu sumbee mbiram rek la waaye gis nga ko yegg na ba ci BRT bi nga xam ni moom la ñuy yàq Cheikh Yérim li ko war a gën a naqari mooy bakkan yi nga xamante ni bi ñàkk nañ ko ci manifestation yi nga xamante ni bi mujjee na fi am sénégalais nag lii mooy li nga xamante ni bi mooy problème am parce que le fait que ñu bëgg a fàtte li nga xamante ni bi xew na fii ci réew mi nga bëgg a ñoo jox yow yeneen réew maanaam même sax bu fekkee ne dafa ñu bëgg bëgg a fàttaloo mais aussi tamit dafa ñu bëgg a tuutiloo nit ñi fi ñàkk seen bakkan nit dafa warta ñàkk bakkanam ci manifestation ci kaw ci ni nga xamante ni noonu la Sénégal tëddee nga xam ne da nga war a yëgle rek pour aman li nga xam ne moom la yox manifestation tere gi moo du nekk sax léeg-léeg lu normal parce que pour nga tere manifestation day xaw a lool parce que dañu def ci biir constitution bi daganal ci li nga xam ni mooy manifester nit ñi am droit de manifester mais le fait que mu tuddal la 500 morts tuddal la 80 morts booba la xeeb 14 morts yi nga xam ni am nañ ko ci manifestation te nag gis nga boo xeebee lenn li. mooy permettre ñeneen di def leneen lu gën a garaaw yu ñuy yóbbu foofu foofu lañ bañ a yegg parce que benn nit warta ñàkk bakkam ci bakkanam ci manifestation yi nit ñi lan la ñuy manifester ñaata manifestation nga fi gis ñu autoriser ko te déggoo benn yoon problème am yi indi problème yépp mooy yiñ tere kon defe naa ni foofu la waroon a wax foofu la waroon a jëmale kàddoom mais pas ñu jaar ci yoon wii nga xam ni moom lañ jaar. boo seetee dafa am ñoo xam ni dafa mel ni dañuy jóg pour manipuler opinion bi nit ñi nga xamante ni bii jàpp nañ ñi ñii ñi ngi nelaw ñu fexe leen a taalal ventilo wala ilaa ñu du leen upp gën leen a bàyyi ñuy nelaw mais Sénégal googu jeex na nit ñi nelawuñ ay njàccaar lañ ñi ngi ne xuj di xool xam li xew c'est que ñoom Cheikh Yérim fekk ñi ngi jàngatee sénégalais yi comme ni ñu doon jàngatee ay sénégalais des années quatre-vingt des années quatre-vingt ñi ngi ci njuumte parce que depuis quelque temps nag ma wax la lenn sénégalais yi ñor nañ te am nañ vécu politique am na lu bari loo xam ni xam nañ ko maanaam xeetu naxaate gi nga xamante ni bii sax moom la ñenn ci presse bi di naxaate sénégalais yi xam nañ leen donc il faut que. ngeen xam ni pour manipuler nit ñi yombul Cheikh Yérim delluwaatal tuuti xalaat di nga xam ni li nga doon wax ay waxu kuy nelaw la mbokk yi ak xarit yi ñuy amaat mbégte ak kontaante saa suñuy jàkkaarloo yéen ci l'émission des émissions di gërëm ñi nga xamante ne bi ñoo nekkoon ci équipe technique bi ji moo di juuf jiite leen du topp ak Ablaye di gërëm aussi tamit directeur programme son yi bu Diop di am mbégte ak kontante ci yéen ñi nga xam ni yéen a ñu doon teewlu ñuy joxante dig daje beneen yoon ci l'émission des émissions jërë ngeen jëf.